et de propositions de lutte contre la pauvreté et pour apporter un développement local. Ainsi, c'est un mouvement à but non lucratif dont la vocation est de mettre en place un cadre de réflexion, d'échange et d'épanouissement culturel, économique et social pour toutes les personnes. en général et les jeunes en particulier, sans distinction d'origine, à travers l'éducation, la sensibilisation, l'information et la formation. De ce, fa de ce fait, il tend à mener des actions pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations issues des couches sociales défavorisées dans différentes zones. à l'aide de la coopération décentralisée et d'initiatives locale C'est dans ce contexte que notre mouvement œuvre pour un partenariat avec des organismes nationaux, internationaux, en vue d'atteindre ces objectifs. Pour ce faire, conformément aux principes et objectifs de base du mouvement, Le carnet de route s'inscrit sur trois axes prioritaires. Un volet culturel et religieux, avec une découverte et une prise de contact avec la population. Un autre volet humanitaire, avec l'obtention de matériel scolaire de base en faveur des enfants pauvres en proie à des difficultés de scolarisation. L'objectif à ce niveau est de faire un documentaire sur deux cas de figure, que sont un premier qui tire la sonnette d'alarme pour dénoncer la misère et l'exploitation des enfants de la rue, un second cas, et non des moindres, qui montre un exemple l'existence de structures éducatives. Pour le troisième et dernier volet, l'étude de projet de développement local, il s'agit là d'une démarche participative qui réunit l'ensemble des acteurs de terrain, association GIE, ONG, regroupements féminins, collectivités locales, en vue de mener des actions concrètes pour une amélioration des conditions de vie des populations. Je voudrais, en cette heureuse circonstance, renouveler nos remerciements à nos partenaires pour leur constant soutien à la bonne marche du mouvement. À cet effet, on tient à vous assurer notre disponibilité et notre dévouement à l'accomplissement de cette noble et exaltante mission au service des population je vous remercie. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di tàmbali si nuyoo bi sunu kilifa yi nga xamante ne ni kilifa yi diine yi nga xam ne ñu ngi fi nekk di nuyu euh, président mouvement jàmm di nuyu yéen journalistes yi nga xamante ne ni yéen tey jii yéen a waral tey jii donc euh, lii di dem di law. di nuyu aussi tamit ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi seetaan seetaan en direct aussi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax voilà donc euh, tey dañoo ñëw ànd ak euh, mouvement jàmm man maa ngi tudd Souleymane Mangane di chargé de mission au niveau des euh, mutuelles de santé régionales au niveau de Dakar donc bi ñu déggee initiative bi. ñu waxtaan si ak Baye Seydi mu wooñu ñu waxtaan ak kilifa gi ndaxte tey soo xoolee tey gis nañ ni àddina euh, bi tey metti na Sénégal metti na jeunes yi sonn nañu donc euh, famille yi aussi tamit sonn nañu si ban côté si ban fànn muy fànn santé bi surtout donc bi nu waxtaanee kilifa gi mu rafetlu ko lool bëggoon a ñëw nag bëggoon teewe waxtaan bi mais euh, yàlla def na ni comme que ñoom dañuy xaw a xat tuuti donc mu nekk feneen waaye mel na ni rek tey moo ngi fii ndaxte ñoo ngi fii voilà di wax ni tey euh, soo xoolee euh, suñu demee si santé tey dañoo xam ni santé tey dafa cher parce que tey mel na ni tey ma am sama soxna mu feebar yàlla tey mu feebar ma jël yóbbu hôpital tey ma waroon a jël tey su ma demee hôpital lan laay jënd naa jënd tikke bu 5000 su ma paree gis docteur bi mu din bindal ma ordonnance ordonnance bi mën na doon juróomi junni mën na doon fukki junni su ma paree mu defal ma ay bilan yoo xamante ni nii war na ko war a mën a def donc tey loolu yëpp soo ko xayma mu doon xaalis bu bëri mu am benn programme boo xamante ni ñu ngi koy wax CMU couverture maladie universelle nga xamante ni tey jii dina dimbali askan bi ànd ak askan wi ànd ak chef de famille si seen wàllu euh, wér-gu-yaram ndaxte tey nit ki mënul liggéey nit ki mënul am jàmm tànk amul wér-gu-yaram donc su nee wér-gu-yaram nag dañuy wax maanaam si njëg li donc moo tax tey ñu ñëw ñu ni ah tey kat mutuelle de santé yi ñu ngi fi samp mutuelle de santé yi si gox yu nekk ak gox goxaat yi ne tey képp koo xamante ni ni tey jii adhéré nga dugg nga état ne la tey soo duggee da ngay yaa ngi inscrire à cinq francs juróom-ñaar téeméer soo paree si juróom-ñaar téeméer yooyu da ngay jënd benn euh, carnet boo xamante ni ñaar la loolu soo ko boolee yëpp du juróom-ñetti téeméer muy 4500 francs donc loolu soo ko amee mu ni la état ne la tey am nga couverture un an maanaam tey jii si at boobu yëpp saa boo feebaree nga war a dem hôpital dinañ la faj faj bi nan lay demee maanaam dina jël quatre vingt pour cent au niveau donc des post de santé centre de santé ak hôpitaux yi mu ni dina jël quatre-vingts pour cent quatre-vingts pour cent yooyu maanaam tey su fekkoon ni tey ji man tey bi may ànd ak sama soxna maa ngi fay euh, junni moom bi muy ànd ak soxna mu ngi ñëw moom doo xoolee tey euh, ñeenti téeméer sax du ko fay ñeenti téeméer sax du ko fay donc tey loolu soo ko boolee ci at bi man tey jii li may def ak moom li muy def da gis ni dafa am différence bu baax te différence boobu noonu xaj na si dund xaj na si leneen xaj na si leneen xaj na ci leneen moo waral tey ñu ni donc dinañu ànd ak euh, mouvement jàmm si lii nga xamante ni nii yëkkati na ko muy battre campagne ak moom ànd ak moom si lépp loo xamante ni nii war na ko def donc ci wàllu mouvement yi association yi donc jeunesse bi éducation euh, ak euh, mbootaay yeeg ñëpp ñoo xamante ni nii dina leen mën a euh, gis soññu leen waxtaan ak ñoom war leen ni carrément ñun ñoo ngi ànd ak ak mouvement jàmm fas yéene incha allahu rabbi donc jàppaleen bu baax a baax a baax a baax. waaw xam nga maanaam loolu euh, mën naa ni sax euh, day am ci bépp euh, entreprise boo xamante ni nii mu ngi dund parfois mu am ay ay ay ay ay ay retard du ma ni sax ay problème mais ay retard la yoo xamante ne nii war na ñëw egseegul donc am na yoo xam ne egsi na am na yoo xam ne déjà déca décanté nañ ko parce que du ne semi du pour mouvement jàmm rek yemul ci mouvement jàmm rek pour askan wi la donc kon toujours donc on est prêt toujours à accompagner donc euh, le mouvement ak euh, bépp famille boo xamante ne nii donc yaa ngi dund fii donc au niveau donc euh, de notre pays. chers partenaires chers représentants de la CMI monsieur Cheikh Diène vice-président du mutuel de santé honorable invité à vos titres à vos rangs ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum di leen dalal ak jàmm. di am mbégte bokk ak yéen xew-xew bii tey muy lan di lancement officiel mouvement jàmm comme ni nu ko waxee léegi jàmm day benn initiative ba nga xam ni ci ay ndaw la jóge ay ndaw yu am Pastef ay ndaw yu xarañ ay ndaw yu am benn bëgg-bëgg mooy seen ëllëg bu mucc ayib ci loolu la ñuy profité assuré leen wax leen ni On vous a écouté et on a compris. Et maintenant, on est prêt à servir. ëllëgu ndaw ci ndaw la mën a dépendre pour mu baax waaye ci bo bu mag bi muusee war na koo mën a gunge ngir mu mucc Seydina Limaamu mi nu yaakaar muy alay salaatu wasalaam daan na wax ni diine ja ndaw ña mag ñu muus ñoo koy fekk te ñun ci yooyu la ñu bëgg a doxe jàmm nag fësee na na dox ci lii nga xam ni muy wàllum éducation di wàllum santé di wàllum formation et emploi des jeunes lii nag lu tax ñu choisir que dañoo xam ni boo bëggee am sa ëllëg mu baax foo nga am étude bu baax te gis na ni éducation bi sooke na ci lu bari mën nañ ci citer rek ñaar problème de manque de moyens des parent tax xale mënatul pour poursuivre jàngam jàmm ni loolu dafay deñ jàmm ni dina jóg ngir gunge xale boobu ngir mu am kaaraange si wàllum jàngam gunge ko ba ba nga xam ni xale bi dina jàng ba am ay diplôme ci jàmm lo ñu constaté waat beneen ci wàllum éducation mooy problème de manque problème de manque d'infrastructures sanitaires yi am ci école yi jàmm jug na def ci ay investigation dem na ci terrain bi xool les manquements fa séene nañ ci bay suñu waar xool nun ko mën a saafaraa ñu saafara ko beneen bi mooy wàllum santé boo bëggee jàng te amoo wér-gu-yaram mënoo dem soo bëggee réussir te wér-gu-yaram amul doo dem jàmm taxaw ngir sàmm loolu ngir xale yi bu nu feebaree mën a faju ci jàmm looloo tax ñu jub ànd seeg suñu partenaire bii di couverture maladie universelle ñu ngi sant bu baax di gërëm le président union régionale du mutuelle de santé de Dakar muy Moustapha Meng mi nu yabal Souleymane Mangane mii nga xam ni moo ko fi représenté tey ci ay fan yu néew ñu war a signer ay convention de partenariat ngir dëggal lii rek jàmm jub pour dox ko ci wàllu wér-gu-yaram bi ah ci loolu tamit la jàmm ne boo amee éducation am wér-gu-yaram nga jàng ba pare ah war ngaa mën a def formation nag am liggéey jàmm ni tamit loolu duñ ci dox duñ ci bàyyi duñ ci des ginnaaw dinañ fexe gunge suñuy rakk gunge suñuy moroom ba bu ñu jàngee ba pare ba am seen wér-gu-yaram def seeni formation am seeni diplôme ngir mën a am seeni liggéey jariñ seeni parent ndax loolu mooy la nga xam ni moo moo jaadu ci ndaw ah bu nu jógee ci loolu tamit jàmm ni du fàtte sunu yaay yi jàmbaare yooyu ña nga xam ni mënoo dox tey te doo leen gis ñuy sonn di daan seen doole ngir lan njaboot gi am réussite bu baax dinañ leen gunge incha allahu rabbi ci seen wàllum financement yi moo xam GIE la ONG groupement des familles am leen yaqin ni jàmm fàttewu leen te dina leen gunge dina fex dina def le tout xool fan la mën a jëlee ay moyens mu teg ko ci seeni loxo ngir ngeen mën a am seeni projet yu baax ci loolu lañu mën a wax ni lii la jàmm pare pour liggéeyee ko jàmm nag du Baye Seydi jàmm du Mariama jàmm du Alassane jàmm ay mouvement la ba nga xam ne ay jeunes yu dynamique ñoo ko composé ngir seen ëllëg gu mucc ayib fi ñuy terminer nag mooy jàmm fesee ne na def ay social yu am doole fii ci dëkk bi ak fii ci àdduna bi ngir lan ñañal xeex wàllum pauvreté bi nga xam ne mi ngi commencé gane si suñu réew te bokkul ci ñun lii mooy mouvement jàmm di gërëm bu baax noo partenaire yi nu mën a citer rek mooy ñu ay ndaw yu am passeef yu jub ngir xeex ñoom tamit seen ëllëg ñu mën ci wax mooy électricité compagnie di ay jeunes yi nga xam ne liggéey nañ ba créer seen entreprise ngir liggéey ngir jariñ seeni dëkk ñu ngi leen di gërëm bu baax Touré Sandial di ay jeunes tamit yu am Pastef liggéey ñoom tamit ngir jariñ seen dëkk Lou'Bess TV suñuy partenaire lan ñoom tamit di ay ndaw ñu ngi leen di gërëm bu baax CMI couverture maladie universelle ñu ngi koy gërëm moom tamit bu baax hôtel Sey Salim ñu ngi koy gërëm moom tamit ci jàppale bu baax foog naa ni lii moo taxoon jug mouvement jàmm di déglu quelques question yu bu amee rek ñu ramasser doore. jàmmu euh, merci elmag dinaa sawar ci tontu sa question boobu ndax jàmm fa fësee na liggéey au niveau national ak au niveau international ndax ñun ñoo opté ni danoo bëgg. sunu ëllëg bu mucc ayib kon duñu ko yemale fii dinañ xool fan la nu mën a jëlee ay moyens ak fan lañ mën a décrocher ay partenaires ak fu mënti ne dina leen fa fekk incha allahu rabbi ngir service Sénégal incha allah. question merci question boobu tamit question bu may. bu may neex la parce que jàmm tamit fas yéene na nekk mouvement bi njëkk bi créé bibliothèque bu laayeen fii ci Cambérène loolu tamit duñu ci des ginnaaw te dinañ ci dox ngir mission boobu ñu réussir ko te fe bëgg nañ tamit bu événement diine amatee muy appel que ce soit muy appel muy màggal muy gàmm jàmm dina ci participer ban gis ni jàmm feeñ ci mo aussi euh, événement phare bi am ci dëkk bi lay delloo si waaw fii ñu nekk fii ci réew mi mënoo fi taxawal dara te doo liggéey politique sañ c'est impossible bu jaree ñu dem ci ñoom ngir décroché suñuy suñuy marché ngir servir jàmm incha allahu rabbi dinañ ko def mais jàmm liñ la mën a xamal mooy ubbiw tëjul port yi ngir kenn da ko ubbil ñëpp ngir lan sunu ëllëg bu mucc ayib bi nu woote kon jàmm xamal ni dina liggéey politiciens yi incha rabbi. salaamaaleykum.

ndax jàmm dafay dafa ubbi plateforme au niveau national au niveau international dañuy créer ay partenaires ya nga xam ni ñu ngi ci sous-région bi ak ñu ngi ci bitim réew ngir liggéeyak ñoom ba nga xam ni problème yu nu am dañ koy mën a saafara daar daar lu tax ñu am fitu wax ni mën nañu saafara jàngoro yi y a des bonnes volontés qui son là y a des partenaires qui sont prêts à accompagner jàmm comme ni ma la ko cité leen CMI euh, benn fan la ñu waxtaan ñun ak ñoom may saluer seen président bi bi ma ubbil may opportunité boobu démb ci guddi ñu waxtaan man ak moom ba mu yebal ma représentant bi suñu fi jógee ci ay fan yu néew di ngeen gis jàmm signe première euh, partenariat am ak CMI on ak formation des jeunes bi tamit am nañ ci ay partenaires yu ñuy discuter yooyu tamit pare jox na nañu seen accord te fii ay bis yu néew di ngeen gis ni jàmm tamit dina signé beneen partenariat ak waa ak yeneen moo ONG yu fi nekk. ci yu ñu lu tax ñu ñemee wax loolu parce que tamit bon yàlla may nañu ñu nekk ay ndaw mais am ay relation yu ñu permettre ñu décrocher yenn mbir indil ko wax nañ ni suñu amul moyen cent pour cent dina nekk influenceurs yi mooy maanaam di dénoncer di wàcc ci terrain bi di xool la fa nekk. bu nu ko mënul saafara tamit dinañ ko dénoncer ndax l'État est là pour tout le monde dinañ ko dénoncer wax ak état mu jël mu def ay prise en charge pour saafara loolu muy doon solution éternelle mu bañ a amati ci aspect yi nu lim yépp lii moo tax jàmm am fitou ni lii dinañ ko saafara insha allahu rabbi euh, bon jàmm Euh, avancé na ci sous région bi bu baax a baax a baax waaw jàmm avancé na si sous région bi bu baax a baax a baax ba mën na ni am nañ ay dëkk yu bari ya nga xam ni am nañ fa ay représentants comme par exemple mën naa ni mbuur cees ak Kaolack en ce moment am na ña nga xam ni ña nga fa ñu ngi discuter ak ñoom te bu lancement bi jàllee di ngeen gis ni jàmm dina def ay voyage yu ndaw si sous région bi pour gën a dëggal li mu wax incha allah.

opteetul wax wax fii la yem bu nu lancé ginnaaw ba nu lancé mouvement ba pare ci point de presse jàmm pare na noppi na ngir pare pour néewal kàddoom mais lan mooy résultat jàmm mooy ay actes yi muy teg ñi ñi di ko tegal seen bët loolu moom amal yaxin ni du ñu signé ak benn partenaire ci signature yi nga xam ni amul ci critères yu leer yu mu tegu loolu moom ñu ngi ciy dalal sa xel bu baax a baax voilà moom dañoo am benn réflexion différence bi ak mouvement jàmm am na ndax euh, boo xoolee association yi fi créé yu bari muy mu que soit muy association mouvement benn nit moo koy initier benn nit mooy moteur bi benn nit mooy doole bi te jàmm du benn nit jàmm ay jeunes lañ yu dynamique am Pastef lool am compétence ñoo jug ngir xeex te ay jeunes bu nu jugee pour xeex bu dee lu dëggu la am na yaqin ni dina avancer. kon ñun ak mouvement yooyu ak association yi am nañu différence ndax nous sommes ñun limité wuñu danoo ni danoo pare ngir liggéey liggéey bi fu mu mënti nekk ci àdduna jàmm pare na pour dem foofu ngir relever défi boobu noonu beneen aspect bi nga wax ma nga ñëwaat ci tuuti mu leer ma xam ko. no parce que gis na ni li fi da li fi ne doyatuñu li fi ne. doyatuñu mooy yaa dafa bëri ay wax bëri ay wax yi nga xam ni gisuñu résultat yi léegi jàmm ni nanu nanu détaché wu dem uti ay résultat bàyyi wax ji mais loolu taxul ñu bañ a ànd ak ñoom dañu ubbil suñuy porte ñëpp bépp association wala mouvement bu fi nekk boo soxlaa jàmm jàmm day liggéey yow te bu nu amee projet ba nga xam ni war nañ ko mën a jox beneen mouvement mu dooleel lañ non dañ ko koy jox ndax tamit mënoo nekk ci gaal di ñaan mu suux dañuy ñaan ñun ñépp am benn objectif mooy Sénégal jëm ca kanam lii moo tax jàmm ni day jël yoonu boppam mais bëgg nañ tamit lu nu jël suñu yoonu bopp daje ak ñoom ci voie bu légal bi. bon sama dernière question ku xam Mbaye Sèye xam relation ak Kaolack. Mhm. donc à présent est ñun mënuñu jàpp ne tey Diouf laa moom moo nekk <laughs> danga ma may opportunité sax ma ma ma nuyu sama sama sama kilifa googu euh, lu waay bañ bañ nit tamit bu la defalee lu baax da koy nangul te soxna yaafaati ak boroom këram muy Abdoulaye Diouf Sarr monsieur le ministre danoo def lu ne ngir man nag def na defal nan ma teraanga defal nan ma la nga xam ni tamit du ma ko fàtte mukk ci àdduna mooy lan ñoom ñooma mooy opportunité ma xam point yu sensible yi ñoom ñoomu may opportunité may dugg ci kër di xam nit ku ñàkk nan lañ koy dimbalee ak boo koy dimbalee ci nan ngay jaare kon ñooñu duma noppi di leen gërëm te di la wax ni réeroo ma ñoom ci lii dara nag réeroo ma ñoom ci lii dara mooy ba mu amee dem naa toog ak ñoom ñaar ñëpp expliquer leen mooy danoo jug ngir xeex suñu ëllëg te bu nu bëggee xeex suñu ëllëg foo ko tamit ñu am lu ñu sacrifier ngir doxal lool lii nii ñu nekk bu dee si cawlaay lañu war a dem jëli ay ay moyens pour def ko non dañuy dem ci moom jëli ko bu dee ci monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr la ñuy jaar pour dem jëli ko moo dañuy dem jëli ko mais mouvement bi jàmm la les amis de Diouf Sarr les amis de Diouf la kon am na différence loolu moom ñu ngi siy dal sa xel bu baax a baax a baax. au niveau de mooy bien sûr mooy comme li ñu wax léegi rek jàmm xëyul xëy rek jug taxaw. jàmm dafa jug dafay investigation yu leer gis nga wax balaa muy mën a neex nga dut baaraam ba mën nga bëgg amoon na yéene torop mais ku naan la mi ngi nii kooku la gën a am sañ-sañ ñun def nan investigation yi ba pare xam nan lan moo doon problème bi te incha allahu rabbi loolu doonu doon problème loolu jàmm moo la koy assureel yow dinañ jug xeex wàllum chômage bi bu baax a baax xeex bu baax ku feebar mën a faju ci jàmm ànd seeg suñu partenaires yi ma la wax léegi mooy seen incha allahu rabi loolu moom na sa xel daal incha allah merci. merci maa ngi rafetlu sa question bu njëkk bi bu baax a baax a baax waaw mooy comme li la wax jàmm avant ñuy euh, taxawal lii dañu dañu liggéey bu baax ci suuf nag togg ko ba mu ñor bu ma nee la deux ans ngi nii ñuy préparer lii doo ma te loolu mooy dëgg ci ndax da nga war a nekk nit ka nga xam ni boo préparer benn mbir booy préparer benn mbir da nga ciy jël sa temps waxtaan seen ñi ngi ci war a waxal di profité ci occasion bi di nuyu suñu kilifa diine ak le chef de village ak ñi leen di jàppale ñun ñëpp dem na nag ñoom waxtaan ak ñoom ñu jox ñu seeni conseil génn ci biti xool ñu nu ëpp expérience waxtaan ak ñoom ñu jox ñu seeni conseil ba lii tey mën a taxaw kon loolu moom ñu ngi lay assuré ni jàmm commencé na liggéey bu yàgg avant lii di ñëw tey dafa nekk la nga xam ni nag dafa jot ngir ñu ngénte ka génnee ka ngir mu mën a doxal non non bu ñu doon profité euh, bu ñu doon profité pour euh, def loolu ñun am na am nan ñun nous tamit des influenceurs am nan doole nag ci dëkk bii te xam na nu fi tamit kon dinañ profité def balaa lii di balaa ñuy am ay liste yu ñuy dem ba ñu naan campagne léegul bu doon jàmm dafa am objectifu campagne wala euh, législative yi jàmm dina am député bu ñu fi investir. loolu moom maa ngi la si assuréel nii seen bokkul ak sax volet jàmm ni muy doxee. ñu ngi lay dalal sa xel soxna si bañee ko ba ba mooy ubbi boo ma déggee maa ngi koy wax maa ngi naan ndaw ñi déglu naa leen te comprendre naa te incha allahu rabbi on est prêt à vous loolu ñun ñoo ko engagé wu ndax dañu yàgg a si lii mais ñu naan jotagul bu jotee rek dinañ ko def ñuy togg di togg di togg ba ba nga xam ni nag ah ay nit ñoo taxaw ni nu nag ah li ngeen di togg ñor na yàkk leen ko ñu dóoru am fitu taxaw nag ni lancement bi jot na ngir jàmm jub dox te bañ a gëstooti ginnaaw ñu ngi lay dalal sa xel ni bul lay invité waat yow fii ci ay action lay doon incha allah <laughs>